di jaldi jaldeeg ñol ñoleeg coow lu rëy tàmbali na am xaat ci dundu état bi war a jàppale lenn ci askan wi seen loxo jotul seen ginnaaw ci jamonoy coronavirus bi fa coow li nekkee nag mooy ca marché ba jëm ca transporté dundu googee laas nañu li ñu bari ci askan wi mooy lu tax ñu defub appel d'offre jël marché bi di ko joxe di ci fay xaalis bu dul jeex te ci jamono joojee mbootaay gi séq waam transport routier yi ci réew mi ne leen ko jox ñu yóbbu ko te duñ ci laaj dërëm jëwriñ ji yor yëf yi di Mansour Faye ak l'homme d'affaires bi ñu duppee Demba Diop ak Diop si marché yi miñ na moo gañ a marché bi ñoom ñëpp ñoo ngi xëy di xiin xiinee ka weddee ka laye ka leeral ci l'observateur ubbil yéen kaay bi suur Faye nañu juróom benn milliards yi ne moom lañu def ci transport boobee xaaj ba xaajaat ba sax demu ca liñ ci def mi ngi toll ci benn milliard ak genn wàll ci suñuy koppar Demba Diop di député Diop si mi yor entreprise bi gañ a marché bi mi ngi xamal ne bu ñu xaymaa famille bu nekk lam war a joxe ci transport boobee mi ngi toll ci ñeenti téeméer di maanaam deux mille francs Mouhamadou Gounta Mboup dib enseignant chirurgien ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ñu xamal ne Diop si moom mënta nekkub député ci l'Assemblée national ba noppi bëgg a sol mbubbum chef d'entreprise naan mi ngi gañey marché ak yu ni mel loolee day xel nanguwu ko ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp waaye ñii dey seenug dee coronavirus bi nëbb na ko ba kenn yëgu ko ubbil yéenekaay bi journaliste bu mag bii ñu tuddee Mouhamadou Ndiaye Doss Mouhamadou Ndiaye Doss nekkoonub journaliste ci Sen TV moom mi wàccoonub liggéey ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars fële ca Espagne kiig demam metti waa askanu Sénégal ñu koy jooy te mooy seriñu bambara bii ñu duppee mu sëriñ Mohayni Samba mu sëriñ Mohayni Samba Diallo moom mi làqoon lu toll ci juróom benn fukk ak ñett ci ay at ñu jébbal ko boroomam aljumay ji weesu fële ci sigi yu naan medinatul abdu xaadir jeylaani làkku jàmbur su neexee ni tàngalit kenn mënu koo macc ba di ci tàqamtiku kenn du président Macky Sall moom mi nekkoon ganal France 24 ak fi aljuma ji weesu ma nga fay wax la mu man ak la mu mënul ci tolluwaayu réew mi ak l'état d'urgence bi réew mi nekk ca noonee ca la tarxiisee ba dugg ca lañ naan couvre-feu couvre-feu boobee nga xam ne ak tàmmaleem jot naa wex xàtt ci askanu Sénégal moo lu te noppeeguñ président Macky Sall bëgg jëlaatu dogal ci yokk waxtu yooyee li ko dalee six ci ngoon ba sept ci suba feebar yi rek ñoo nar a takkarnaase actation yu monté boole koog di ndogoo ci biir commissariat yi du samay kàddu waa askanu Sénégal ña ngay woote wàllu ci dogal boobu président Macky Sall bëgg a jël ci yokk couvre-feu boobee ñu ne kat lii kat xanaa mooy saafara ju nar a jur jàngoro foo déggee bukk yi mbaw am na bu la jege te yëgoo ci moom dara kuy làqatu di naan soo màndee feeñ ndox du bàyyi yoonam waaye ki war wàcc ne du bàyyi yoonam mooy njiital super étoile bi ñu duppee yuusuma jigéen dóor yuusuma jigéen dóor ci jamono ji nga xam ne réew maa ngi tar kenn tëlu lenn kenn demul kenn dikkatul kenn dematul ci jàkka yi kenn dematul ci école yi jamono joojee ca la yuusuma jigéen dóor moom di gundaandaat di wéttalikoo ab baatam ci concert bu réy bi muy tëggee fële ca Futurs média ca émission bee ñu duppee fii tey may laaj rekk coronavirus bi fan la jëmee réewum Sénégal jaldi jaldi